de la culture Amour Gaye culture agriculture ag agriculture agriculture Amour moo moo tool ya moom ah, ay de bu pire. waaw waaw mooy Amour Gaye. toolu ñam bi itam dégg de l'agriculture bi ma dégg Sénégal de Balde la sant. waaw waaw waaw waaw santul Gaye de Balde la la culture de l'agriculture bu Sénégal waaw waaw bu bu pire ah, wax ah, fu ñuy tàmbalee. Ndiaye. ban laajal paas fu ñuy tàmbalee ci waa ji waayam Ndiaye. waaw Mor Thiam <laughs> bijouterie Mor Thiam. waaw <laughs> mais existé wul dafa existé wul bijouterie Mor Thiam existé wul. waaye dafa tëj benn Facebook bind ci bijouterie Mor Thiam di publier ay ay or ak ay jaaru yooyu quoi. nii day jaay. di wax ak benn femme femme bi waxtaan ak moom ba mu jox ko numéro ay numéro am. Mhm. ñu waxtaan WhatsApp. femme bi wax ko pour mu defar ko benn lam bu deux cent mille. Mhm. ñuy waxtaan ñoom ñaar. ba juboo ci kàddu. ba avance ko. ndaw si ah moom xay ndaw si kay yónnee na ko avance depuis octobre. bi mu koy avance depuis octobre nag ñu ñëw ba démb waaj ji woo ko ne ko nag complété xaalis bi parce que mi ngi jox lam bi livreur bi ndaw si yónnee waat ko yeneen cent mille. pare na ca. c'est que man affaire yi. <laughs> non. affaire yi man daf maa metti liggéey ku nekk ñaata at a ngi nii maa ngi naan leen maa ngi leen leen bàyyi leen Facebook bi ngeen di wutee ay xarit bàyyi leen Facebook bi ngeen di utee ay jëkkër. bàyyi leen ay Facebook xamanteeg nit Facebook yóbbu ko sa kër xamanteeg nit Facebook jox ko sa xaalis wax nañ ko Facebook fii mbedd la. Mm-hmm. Mor Thiam visiteur yi Mor Thiam nga wax ak yow jox lay numéro rek nii la damay jaay lii nga du yónnee ko sa xaalis mais loolu dafa yomb njaay. mais ban xam nga ku nekk ak niñ la yaree. Mm-hmm. xam nga buñ la yaree ci njub pour yow ku jug ak njub a koy yëkkati. ah xam nga gars yi bu ñuy dóor. doo mm-hmm. dégg ma ko bijouterie Mor njaay wala bijouterie Mor sa kii de. Mor Thiam lañ lay wax. Mhm. bu ko defee ñu noo kii bala ma. est-ce que oustaz Mor Thiam moom la. xamoon naa ne fa nga jëm <laughs> oustaz Mor Thiam. ah jar nañ defi jar defi enquête jar defi enquête. xaritam mooy alxuraanul karim. ah waaw xam mu mbaar. Mor Thiam xaritam ah, parce que on sait jamais. boo moytul booy dee da ngay mar. ah xaw ma de <laughs> xaw ma de. parce que bëri nga na ah, lool dañoo am Mor Thiam nag dañoo am am Mor nag. mais nag day wax bijouterie Mor nekkul yaraa tudd bis nekkul ñu yaraax boo di teeree yaraax. <laughs> ah wóor ah, na. Ah, waaw yàlla Oustaz Oustaz Mor sama. jël benn booyam teg ko fa. ndaw si ndaw si mooy wax moom moom ni ko dóoree lay nettali. waaw jox ñu. waa ji maa ngi ko xamee via Facebook mu jox ma ay numéro téléphone am ñuy waxtaan ci whatsapp bi mu ne ma bijouterie ville la nekk léegi nag ñuy waxtaan mu ne ko dama bëgg lam. mu ne ma ma ne ko lamb deux cent mille laa bëgg léegi mu ne waa defal na ma mu ne ma naa indi avance bi le 8 octobre ma génnoon demoon fil ba ñëw jaar ci wari bi defal ko via orange money cent mille démb tamit mu woo ma ne ma pare na mu ngi koy jox livreur bi mu indi ko su ma ko mënee dugalal xaalis bi mu am problème yi mu réglé ma ne ma jël cent mille defal ko ko wave léegi nag démb si guddi woo na ma mais tey toute la journée maa ngi koy woo day sonné rek ba dem boîte vocale wala du ma ko jox sat bi ma ko njëkkee woo joxuma ko xamante wuñu mosuñoo gisante par Facebook lañ xamante. bijouterie Mor Thiam mais Fallou Thiam lañ ko identifié ñi ngi xamante Facebook mosuma ko gis mosu mosuma gis dañ doon waxtaan mu jox ma numéro WhatsApp moom si lañ doon waxtaanee léegi nag. ci la ma wa ci la commandé lam bi mu ne ma deux cent mille ma commencé na ko le 8 ma jox ko cent mille démb ma complété ko mu ne ma pare na waa ji da koy da koy livré numéro am am na 76 296 72 35 am na beneen numéro 78 294 22 73 am na beneen numéro aussi. ah sama jàmbaar yow eh? boobu. sama jàmbaar raw ma raw foofu nag waaw. Ah, ñuy yegg foofu ca Mor Thiam jaag ñoom seen. Hmm? élément bi ku ko monté. man ban yàpp nga ñu. lu xew ndaw si def na fi ñetti publicité. waaw mooy ndaw si tudd na Wari. waaw tudd na Orange Money tudd na <laughs> waaw mais kii luñ ko def dagan. de daganul de. loolu ah, déet wala fa bi. Mm. waaw moom perte na pertal ñu. waaw moom. waaw na. ah pertaaleel ñu. loolu du publicité. du loolu du benn publicité. ah, ah. de euh, mu femme bi doon femme bi femme bi nu mu tuddati. femme bi fi bi ñëw. borom vitre aluminium yi. waaw non kin doon woo. ci këram ak doomam yi te doom yi daaj armoire. waaw waaw waaw te man problème ak euh, Sonatel ba ne daf leen di porter plainte. waaw xam nga ñaata yoon la fi tudd Sonatel. waaw garaawul loolu moom ñoom lay tuuma. Ah, mais kii femme bi. Ah, bu jotee ci deux cent mille yi ko waa ji dóor daal la ñëw fay si. publicité bi en tout cas en tout cas que mu tudd Mor Thiam wala que mu tudd Fallou Thiam. ne ko nit ñi mooy te nit ñi nañ bàyyi par exemple di dugg fi di jënd en ligne la plupart wóorul. wóorul de. comme am na ñu am na ñu ci ne nag di jubal. wax dëgg yàlla am na am na ñu ci nekk ñu baax mais la plupart laa wax. maire Diallo de mos na ci am bés. ah. ah, ah. commande bu yëfee war a yegg si booy bi ne ko maire bul ma woowati. bu ma woowati dara nga dul jot muy muy muy muy say. <laughs> boobu du ko nettali. du non du ko nettali kenn. maire Diallo kay li koy dal. pour dafa bari pourtant nettali na ko nag de. Ah. nettali na ko nag de. <laughs> ak quartier bu lëndëm. ba muy weeru kooram googu. kooram googu du ko fàtte de. <laughs> bi ci topp ban. Ndiaye. comme yéen vendredi ne moom teg teggi lay doon. Ndiaye Ndiaye dëkk dëkk bi. nit ñi a maa def nii su ma nee la damay bay yii nii nga ne ma bul ba jàpp ci rek affaire yooyu. Mhm. tout le temps li leen di wax. te la ñuy te la ñuy dellu. déggoon nga fi caaw de revue de presse nga ko sax sëriñ boobu ñu naan Mara Seck te doon wooyu turam boppam jantal Mara la xaw ma. te mhm. ñu arrêté ko. Mhm. ka tax ñu arrêté ko. ndaw sa mu dóor naan ko dama lay defaral ba bague magique. bague magique ba ndaw soosu ca boppam. moom lañ jot ndaw si Amérique la nekk. ndax da ko seetaan ci télé. Mhm. seetaan ko ci YouTube bi woo ko téléphone yónnee ko yónnee ko yónnee ko yónnee ko ba mu toll mat un million. Mhm. jotul bàgg mun ko say affaire dafa dëgër. jinne yi nee nañ ma nga jox ma trois million trois cent ma trois millions cinq cent. Mhm. xaalis boobu nag danga nga ko jox sa rakk bu góor sa rakk bu góor bi su ñëwee day toog fi mu toog ma defar li muy defar bàgg bi fekk la Amérique. ndaw si nag nee na moom foofu dafa mel ni moom li mu nekkee tayu ko. mu woo frère yónnee ko trois millions et quelque. waa ji trois trois millions. trois millions waaw. Mhm. yóbboo ko moom yóbboo ko ci benn appartement teg ko fa teg fa frère bi. Mhm. génn jël xaalis bi ni fees dem. frère ba toog na fa xaw ma <laughs> toog fa di xaar jëbale minuit. Mhm. déglu ndaw si premier partie bi. sama diggante ak Serigne Mara Serigne Mara Seck la doon tuddee boppam waaye turam dëggantaan jàpp Seck la. bi ko jàppee ci la ñu xam turam dëggantaan moom moo tuddee boppam Serigne Mara Seck di woowee boppam Jantal Mara waaw man nag maa ko xamee woon ci émission 2STV YouTube tamit seen channel yi ñu bari dañ dañ ko daan invité ci tele yi muy wax naan dafay defar ay bagues magiques plus d'une fois taxaw si télé yi à chaque fois di ko tudd di ko taggal ay di ko taggal di ko tagg daal di ko waxal yu baax yi muy def ak ni mu jubee ak ni mu mënee waaw man nag li ñu seexoon moom mooy mu defaral ma bague magique bi ma ko woowee daf ma ni ka loolu bu ko defaree sax affaire bi daal benn siwo ngay def ndox sa kër boo ko defee moom bu defee li muy def après yow da ngay xëy benn jour ubbi siwo bi fekk fa bague magique bi waaw li ma si gën a jaaxal tamit mooy daf lay jox ay tour ay kii daf lay jox ay vidéo yoo xam ne ay nit ay jigéen ay góor ñu bari sax di di témoigner lim leen defal naa defal na leen ko waa defal ne man nag bi mu demee ba ma xam ne yëfi ay yëfu truand la ci laa xam ni que mën na sax fay ay nit enregistré loolu après mais man sama diggante ak moom man dama yaakaar ni sax dafa am lu ma defoon waaw que man du neen daal man daal yaakaar naa am na lu ma defoon ba nga xam ne saa yu ma woowee ne ma ah man de damaa soxla nangam pour ay sarax yónnee ma nangam ma di ko yónnee waaw daanaa ko yónnee bu ñu xaymaa daal li ma ko yónnee daal li ma ko yónnee bu eggul un million tamit jege na ko. mënumaa fexe daal ba sama jaaro daal ma am ka waaw man nag bi ma xasee nag ba yónnee ko sama xaalis dama ne kii daal naa maslaa ak moom ba jot sama alal daal moo gën may bàyyi noonu di perte. waaw ba benn jour mu ne ma mooy bi mujj li indi problème bi yëpp li indi ñu démasqué ko mu ñëw mu ne ma man daal damaa soxla ah, jinne yi dañ may laaj 3 millions 500. ma ni ko nag man 3 millions 500 mënuma kaa yónnee noonu waaw mënumaa jël ay 3 millions 500 di ko yónnee noonu ci ci MoneyGram ci loo xam ne du benn garantie parce que laaj nga ma plus d'une fois ma jox la ba léegi gisaguma ma dara waaw bi mu xamee nag ñu dëgër naa que affaire boobu narul marché côté boobu mu def beneen proposition mu ne ma léegi bu dee am nga fi frère wala nga am fi sœur wala nga am fi koo mën a yónni mu indi xaalis bi. waaw ndax bu indee xaalis bi bu ñëwee dafay toog même pas 30 minutes ma defar li may defar ah nga jot sa jaaro parce que yow sonn nga man sonn naa affaire bi yàgg na ma ne ko ah bu dee loolu de sama frère ñëw te dafay toog moom moo indi xaalis bi nga def li ngay def après delloo ko xaalis mu ne woon dañ koy delloo xaalis bi loolu moo indi euh, démasqué bi ñu ko démasqué après ma jël xaalis bi yónnee ko sama frère ci Sénégal jox ko numéro téléphone Mara Seck bi ñu daje bi ñu dajee ñu ànd dem am na daal fu mu ko yóbbu si benn appartement teg ko si benn néeg ne ko xaar ma man maa ngi ci beneen néeg bii foofu laay defaree mbiri su ma ko defaree ba pare jox la xaalis bi nga dem yónnee waat ko ko sama frère toog ci néeg ba toog ci néeg ba toog ci néeg ba toog na ci néeg ba suba la woon ba guddi munu fexe te am na benn moment mu génn dem yërlu ci eh, xool néeg bi fekku fa fekk fekku fa sëriñ bi ndeke daal moom li ko gàttal daal diggante boobu sama frère jox ko xaalis bi mu ne ko toogal si néeg bi ci la ñuy tir jël xaalis bi daw waaw ànd ak benn nekkaale bu mu nekkoon foofu ñu daw. mu woo waaju waaju ne ko maa ngi ci néeg bi rek maa gisul. frère bi la xuloon waaw frère bi dugg na ci néeg bi gisu ko. mu woo ko téléphone ko maa ngi ci néeg bi rek maa gisul jinne yi la toogal rek xaar ma. Uh-huh. ci suba gi 11h mi xaw ma midi ba minuit ci guddi. Uh-huh. waaju toog di ko xaar. ndekete foofu appartement meublé la. Uh-huh. Euh, bi muy dugg si ci biir kër gi mi ngi naan borom mu ngi naan jaboru borom kër gi nangeen ngeen def ça va na ngeen def naka xale yi affaire yooyu mel ni ku fa dëkk meeg dafa luy am néeg rek pour pour pour dóor pour dóor noonu rek dugg dugg bàyyi fa wàcc jël xaalis bi dem hmm? déglu déglu ni mujjee ba niñ ko jàppe ba après sax mu gis borom kër gi borom kër gi ne ko fii daal euh, diw mi ngay wax Serigne Mara Seck man mii maa ngi koy maa ngi koy wër ñetti semaine ak nii ma koy wër nu ma yore sama location bañ ma koo fay ni yàlla di def ñu di ko topp di ko woo mu naan maa ngi fii nangam jinne yi moo tax munoo maa gis maa ngi si biir kër gi waaw sama sama frère nag néeg boobu mu ko bàyyi woon yàlla de xam nga boo toogee si néeg yàgg fa da nga nekk di xool di xoolaat mu jékki-jékki rek gis ñeenti su ñeenti tànku lal yi mu yëkkati ñeenti tànku lal yi mu seen fa mel ni kayit mu yëkkati ko génne ko muy ay xaatim bi ñu ubbee xaatim yi sama turu mi ngi ci sama turu yaay mi ngi si sama frère bi ma toujours ma ngi ci ay xaatim yu mu def def ko def ko ci suufu ñeenti tànku lali ci ëllëg sa ñu dem porter plainte waa ñu porte plainte dem dig waa dig ànd ak sama frère ñu di ko topp di ko woo di ko retracer par téléphone tey bu teyee mu ne mi ngi Kaolack bu subaa mu ne xaw ma mi ngi fële ñu koy retracer ba yàlla def ñu jàppee ñu jàpp ko waaw yàlla def na kam jàpp nañ ko kam yàlla def ñu jàppee ko ay côté Nord Foire yooyu instant yi ma leen di wax mi ngi jàpp nañ ko ba nañ ko ba tëj nañ ko 3 mois de prison te mu war maa fay presque 4 millions parce que ñetti weer lañ ko tëj te yàlla def mën na def mu génnaat te il paraît que mosoon nañ ko tëj 6 mois waaw il paraît que mosoon nañ ko tëj 6 mois te loolu yëpp bi ñu ko jàppee lañ ko xam bi ñu ko jàppee ci lañ ko xam waaw donc man may bañ mu koy defaat beneen nit mu koy defaat beneen doomu aadama moo tax mu nekk sama devoir ci man ma génn dem si rajo yi bés bu génnee dootu ko defat dootu ko defati nit waaw mooy Serigne Mara Seck te muy woowee boppam jantal Mara te du tus mosumaa jox garab ma sangu mosumaa yónnee téye dafa ni euh, bague magique te nee na ma bague magique bi da am kaaraange di nga am ubbeeku man loolu ma dugaloon si moom waaw même bi mu taxawee tribunal dafa ni daf ma euh, pour pour pour pour rëcc waaw fekk fu mu toll dafa doon lancé dernière cartam mu dem ne juge bi dafa ma doon defal ay ñaan que sax defal na ma ay ñaan ba ma gañee fi kër États-Unis te mu loolu yépp ay fen la muy ay feni neen waaw mu naan defal na ma ba ma gañee kër États-Unis man su ma gañee woon kër États-Unis man du ma ñibbi sama dëkk waaw dara la ma musul defal du dara lu mu mës a dindi rek jox ma daf ma ne woon bague magique siwo bi moom foofu rek laa ko teg def si ndox mu ne ma siwo bi fa la bague bi di génnee 3 3 millions 300 3 millions 300 yi yi sama frère euh, yóbbu woon te mu ne ko maa ngi pare léegi joxaat la ko yooyu la ma jël plus li ma ko doon jox avant mais turam dëggantaan jab sekk la ban ko jàppee ba mu taxaw tribunal jab sekk la waaw même turu ndoy baan bi daf ko doon bu boo naan xam naa ndoy baan bu baax a baax bi ma accidenté nangam ak nangam dans trois mois lay génn normalement le 2 décembre bii la war a génn c'est la première fois ma def lii di jëflanteeg ay sëriñ mais boo gisee ma def ko sax moom mooy daf ma ne jaaro bi yow yaa koy jot te boo ko jotee kaaraange la te ubbeeku lay doon tamit waaw te xam naa leçon lay doon pour man dootuma ko defati ci kaw suuf mais li may bañ rek mooy mu defati ko doomu aadama. waaw soxna si dégg naa la affaire jaaro la la la ngeen waxante woon jaaro magique jaaro boobu pour lan la woon jaaro bi da lay indil xaalis wala jaaro bi la pour lan moo tax nga liggéey loo ko jaaro parce que jaaro magique moom bàgg magique moom doxul jàmm est-ce que xamoon nga loolu jaaro bi lan moo tax nga liggéey loo ko ko. nee na bi daal daf lay aar. waaw kaaraange la ak ubbeeku waaw waaw bague magique bi du danga koy yore mu lay indil ay alal ak yooyu mais dafa lay aar ba pare ubbi la waaw waaw loolu la mooy ubbi la ay buntu wërsëg looy wër du jafe man daal yooyu la ma waxoon te même si télé bi sax boo ko déggee muy wax bu ñu ko invité noonu la koy expliqué waaw ne bague magique bi daf lay aar ba pare boo ko yoree daal boo ko takkee ah, ah buntu yoo fëgg daal daf lay ubbil daal doo am benn jafe-jafe waa si sa wàllu liggéey ak yeneen ak yeneen ba pare en plus daf lay aar waa xam nga ku la wax loolu xam nga yow loolu rek ngay wër waa du looy sangoo du looy te bàgg la rek booy takk loolu la wax waa te li si gën a yéeme mooy dafay yónnee ay vidéo ay nit yoo xam ne dañuy témoigner ne defaral na leen ko mais man j'ai compris après que mun na fay ay nit sax ñu ko koy defaral. waa moom daal loolu lay wax waaw même émission yi mu dem ci yow yëpp ak site internet yi loolu lay wax waaw di ko bàkkoo daal. ku ko takk da ngay gudd fan ak loolu rek la bëgg si si ñii ñaanalaate di ñu defaral en tout cas man bokk waaw lu may aar ba pare yàlla dimbali ma fi ma nekk mu ubbi ma ba li ma li may yóotu ma am ko donc mun naa ni loolu moo ma poussé vers lui waaw vraiment làmmiñ bi bu ndoy baan boo amee temps ubbil rek vidéo yi nga déglu interview yi ñu koy defaral waaw te man moom nee naa sax ñàkkul daal dafa am lu ma defoon parce que à chaque fois su ma woowee rek ne ma sarax bii ma jël xaalis yónnee nii ma jël xaalis yónnee waaw mais bu mujj bi nag bi ma nee nag danga ma yónnee 3 millions 300 nga xam ni jinne yi ñoo ko ko laaj mais su paree daf ma koy delloo ci laa ko ni loolu moom mënu ma kaa yónnee moom comme ça rek mu dem euh, whatsapp wala kii ci ay monogramme ak yooyu waaw parce que nee naa ko yónnee naa la ba tàyyi gisagu dara waaw mais xaalis bu takkooy mu ci la ma ni nag yónnil sa frère mu ñëw toog ma defaral ko ci 30 minutes ma delloo ko xaalis bi mu yónnee la ko loolu moo indi lii yëpp ci ay trace am ak téléphone tey mu ne leen maa ngi Kaolack suba mu ne leen maa ngi fii mu réer nit ñi complètement mais li ñu mayoon chance mooy mi ngi doon continuer di communiquer ak sama frère naakaan dinaa la indil xaalis dinaa la nàngam noonu lañu ba jàpp ko. jàpp nañu oto bi ñu koy jàpp ñu ngi ko fekk benn oto benn bu mu doon dawal valeuru 10 millions moom la ñu nangu si moom yóbbu ko prison. bi ñu ko jàppee sax moom d'accord na sax pour jox ma oto bi. waa ak fay ma xam naa pour yëpp yi fay arrêté foofu waaw mais ñu ne ko nag noonu lay doxee. waaw yow kay comme xas na ba dugg fii moom moom moom dañu lay yóbbu tri dañu lay jugé rek nee na ma daal kaaraange ubbeeku loolu looloo ma dugaloon si moom waaye dooy affaire u magie wala leneen que su ma joxee jaaro bi damay am xaalis non yërëm ah day ubbi waate ba mu bañ mujj ko tëj moom. ah c'est de. ba tëjum xelam. waaw moom nee na sëñ sëñ Mara la moom nee na day ubbiwaate. Mhm. moom ma nga fee ca rëbës ñu tëj. Mhm. beneen bi mooy euh, yow da ni da ngay ubbiwaate da ngay mayawaate bayre. Mhm. ba pare dem ci tele yi. ak yéen sit internet yi pour fay pour am bayre yow. c'est loolu noonu. tuuti naa ci ci sax di ko wax mais bon sama xalaat. mooy Sénégal moo ko war a tere. ah bu fekkee terewuñ ko. nañu ko tere bu fekkee tere nañ ko. Mhm. ñu taxaw ci ñu appliquer ko. Mhm. autant ni ñuy bañee nit ko taxaw di publicité nit naan day faj lii day faj laa day faj laa. Mhm. nañu tere sëriñ si dem ci télé yeeg rajo yi. di wax naan dañuy faj lii wala dañuy faj laa. parce que boo seetloo nit ñi de. man de xëy na nag sénégalais moom bu aajoom fajoo doo ko dégg mais li ma jàpp mooy ñu ciy loru moo ëpp ñu ciy jariñ. foofu. du moment où nag maanaam loolu ñuy def noonu loraange la ci askan wi. te ñoom ñoo ci war a wax. nañu ko tere. Mhm. nañu bàyyi sëriñ si ñuy invité ci rajo yeeg télé yi. Mhm. ñu naan damay faju jeeg damay Ndiaye sëriñ si dëgg demuñu ci rajo yeeg télé yi. bëgguñu sax ku ñëw ci ñoom di leen sonal. Ndiaye ba am benn précision. Mhm. dafa am ñaari jantal maara. waaw dafa tam ko xam te ne pratiquement moom la artiste yi di wéy. mooy ki sant Mbuub ki sant Mbuub kooku. bokkul ak maara sekk bii sëriñ de dañ koy tuddee noonu je pense. moom it sëriñ la de. sëriñ la sëriñ la mais kii aussi kii aussi. artistes yi dañ koy faral di kii artistes yeeg Euh, ñu siiw ñi euh, waaw animateurs yi mhm. c'est-à-dire problème bii nii dem na au delà de sax ay scénario yooyu noonu dafa dafa tënku ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé yi mhm. ak artistes yi di topp sëriñ si di leen defal promotion mhm. nit ñi wóolu leen tey jii ni tey bu nit ki wóoloo Mara Seck wóolu ko parce que moo jëmmam la am na fu mu jàpp tax ñu gis ko fa wóolu ko fa comprendre nga donc nit ñooñu ñoo war a moytu di valoriser te bu Mara Seck amee problème ñu daw dem loolu noonu lan la li Euh, li ma yor Mati Badiane dafa ñëwoon fii démb bàyyi fi quarantaine di ñibbi yóbbu quarante keneen ku ñuy wax Amet Mbaj dafa jaawale quarante bi yóbbu leen Mati Badiane Mati Badiane waaw identité bi nga yor du sa bos sa bos a ngi fii ci suuf askan wi nañ xam ni bu xaaba yi man du ma sax sëriñ yi wax sëriñ yi nanguwu ñoo dem ci télé ak rajo yi bu xaaba yi feeñ ci télé yi mhm. ak rajo yi ak yenn site internet yi dañuy fay mhm. nañu c'est que nit ñi ñoo war a xam wax loolu xam loolu mais su ko Ndoye waxee ci seen kër la ñuy toog ni Ndoye Bane day day meew. ñoo ñi naan Ndoye day meew sëriñ bi da leen di dóor. jërëjëf Bane maa ngi gërëm bu baax allo présidence. ah waaw jërëjëf <laughs> <laughs> présidence la république du président ci Colobane ak Sandaga du Ziguinchor du Fatick du Victoire du président de la république ci palais la république présidence du président de la république bi nga xam ne mooy demoon historique situé dans le quartier de du Sénégal constitué en 1902 sama dépalé ko laa yàgg mu nekk la résidence officielle du gouverneur général l'Afrique occidentale am Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat ba xam kii woote ba jot président la bi ko kan la war doon fa lew la salaamaaleykum ndeysaan màggalu Tuuba de laa ilaaha illallaah màggalu ren gi maashaa Allaah papa lu moo tax bi laay ba ba ba ba ba leen ni Sëriñ Tuubaa maanaam dex ku sóobi ni mes bu génnee xam boroomam kenn du Sëriñ Bàmba bi laay Sëriñ Bàmba moo liggéeyal boroomam de waxuma la dara waaye barki de boppam ji banaana bi orange bi fraise ji kokoko ji mango ji laa xaal ji nag moom daa jàllaa ñëw tabaar. ma ne ah papa kii papa dëgg yàlla jëmate nañ ci ci bisub lekk suba la suba la gàmm. ma ne Pape Pape Loum. suba la gàmm moo ci fi mu ne. salaamaaleykum. Pape Loum ma ne maa ngi eh eh. stand. ma ne maa ngi lay dégg de maa ngi lay stade gadi gadi waa gadi dama ni tiwaawoon amul gàmmu xalif bi joxe na ndigal na kenn ku ne gàmmoo këram gadi tiwaawoon tiwaawoon waaw waaw xalif bi joxe na ndigal xalif bi joxe na ndigal nee na ku nekk gàmmoo